mbokk yi jullit yi gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñëpp di balu xaq ñëpp yal nañu yàlla boole jéggal suñuy rëcc rëcc suñu diggante ak moom te dox ci suñu diggante ak suñuy moroomi jaam ba yiy dox ci suñuy diggante yañ ca yëg ak yañ ca yëgut ba tax koy wax ne bu ëllëgee balaa kenn dugg aljanna sax day seppi ci moom ñagg-ñagg yim jàppaloon moroomam benn mu yëg ko wala yëgu ko woon wala fàtte woon na ko yàlla na ko yàlla tàggale ñun fii ba suñu dugg aljanna bañ a am benn charte tomb biñ fas yéene fàttalante tey mooy tomb mooy li ñuy wax tuub ndax ñiy seetlu nit ak pas-pasam ak dem ak dikkam gis nañu ne yaara ngi ni yoo xam ne ku am gàllankoor ba nar a dem safaan ba ëllëg yàlla na nu ci yàlla musal loola mën na ko caa yóbbu muy ñaari séq nit an nafs wal qalb te ñenn ñi di ko wëlbati ba mu doon lenn waaye ginnaaw lu ci nekk daa am aw tur dana am jëmm te bu amee jëmm bu dee wérit day am day wérati te wérit dem ku nekk wares naa mën a xam li ko dal lu mu tudd ak lu mu doon ak lu ko koy jox moo tax waroom xam-xam yépp juboo ne li ñuy wax bakkan li gën a yées ci natt bu koy dal natt yépp buñ ko seetee ba ca gën a yées ca moom ba gën a bon ca moom ba day ànd ak moom te bu bakkan di dem dafa bàyyi jëmm ji ba dugal boppam ba dugal boroom sawara yàlla ñu ci yàlla musal jàngoro ja ci yées mooy sàggan waaye ab xol itam jàngoro ji gën a bon ci moom ba daf koy wammat ba duggal ko sawara te buy dem dafa bàyyi jëmm ji ne xol bi nekkoon yàlla ñu ci yàlla musal mooy xol bu wow koŋ ba ne koroŋ sàggan mooy lan mooy li nga xam ne kum nekk ci moom day dox ba doon kiiraay digganteem ak yàlla yàlla ñu ci yàlla musal waaye xol bu wobit mooy doon caabi ji ubbi sàggante ba waaj a ànd ak xolam ba ak bakkanam ba na fa yomb dugg dootu gis yàlla dootu ko dégg yàlla nañ ci yàlla musal loola mooy lan mooy daf koy dugal ci néeg boo xam ne ay mooy yàlla ak i bàkkaar donc su fay génn lay feese dell muy sàggante xol boobu sàggante mooy lu ci nekk buñ ko nee lu baax la te kenn ku baax mënu koo ñàkk mu ne yii nañ ko bàyyee gaay ndax loolu kenn mënu ko am xol bu wow nag mooy xol boo xam ne dara ci waaraate mënu caa tàbbi luñ ko wax rek li feeg mi ngi neex ci moom mu di ko déglu waaye saa bu tàmbalee nekk dëgg tàmbalee metti ci ku ko nar a def mu seet ñeneen ñu ngi koy yàkkal waaye moom taxul ñu doon ko toog kon boog kiiraange su doxee diggante nit ki ak boroomam te kiiraange li mooy dëkk bi ñuy wax bàkkaar ak yi mooy yàlla ñu ci yàlla musal loola mën naa ànd ak boroom ba tàbbal ko foo xam ne kenn bëggu faa dem kon boog lépp loo xam ne day tax nit sori yàlla day tax yàlla cofeel gi doxoon digganteem ak moom yàllaa koy jàpp waaye moom dagg na contrat ba loola lu koy teg nit ab jullit war na koo warugar la ci moom mu di ko daw di ko moytu ab jullitit gàll nañ ci aw loosam saa su nekk muy xool lim weesu ba xam lum ca war a wéyal ak lum ca war a bàyyi fa saasa lum ca war a wéyal ndax lum weesu weesu na ko te daa jëm foo xam ne du dëpp mooy ajjuma ji weesu ba ajjumay tey ji mu xool balaa jant beesoo am na luñ ko fi santoon ak lum ca def ak lum ca defut di ko setantal bu baax lépp loo ci xam ne ba mu koy def ba ñu toon ku ko fa fekk ba ñu toon ku ko net ba ñu ku ko nett la ji it loolu lu baax la mu fas yéene balaa ajjuma dellu siwaat mu ñaan yàlla fekke ko yàlla nañu ko yàlla may te fexe ba loolee mu ful ko ajjuma ji di ñëw ak ji nga xam ne ci lañu toll tey waaye lépp loo ci xam ne ba mu koy def bëggutoon ku ko fa fekk da doon patam patami gaaw te it ña ko jot ña ko fa jot a fekk it bëggul mu ñu nettali ji ko loola na fas yéene moom bu mu ca delluwaat mukk ci àdduna loolu mooy ab safaanam lu baax kon boobu nit ko war nay càmbar boppam saa su nekk luy tax muy gën a dund dund gu set wicc ci ixlaas ixlaas bu set wicc waaye di ci wombat ak njabootam di leen jële ci naka du sudul noona saa su nekk di leen yóbbu ci naka noona lu baax waaye di leen jële ci ak mooy yàlla di leen jëme ci topp yàlla di leen jële ci tàggante ak doye dal lu baax lu nekk ak sànq waxtu ak doye dal tuub di leen jëme ci tuub gu sell ak delluwaat ci yàlla ak topp yàlla ndax delluwaat ci yàlla nit ki mooy dem ba war a walbati ko delluwaat ci yàlla waaye yàlla ma nga fam nekkoon ba tey di ko gën a jege saa su nekk maa yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabiuhum wala xamsatin illa huwa saadisuhum wala adna min dalika wala akthara illa huwa maahum aynama kaanu kon nit ki mooy dem ba yàgg rek mu sori ci misaal su doon dem barab dem ba mu yàgg mu fàttali ko loo xam ne mënu koo ñàkk ci yoonam bi moom may del soit fekk si Tuubaa fi mu nekkoon waaye Tuubaa ma nga fa mu nekkoon rek jógu fa di digle lam doon digle di tere lam doon bañ kon bopp yàlla mi nga xam ne moo nu bind gën ñoo xam suñu bopp moo wax ci alxuraan ne moo findal aaya boobu yàlla fa mu nekkoon ma nga fa lam doon bëgg ma ngi koy bëgg ba tey waaye lam doon tere ma ngi du ko mas a digle mukk ci àdduna waaye nit nag moom jaadu na léeg-léeg mu xool ba xam fi mu jot a jaar la ca dëppoo ak ndigalul suñu borom mu fas ko yéene jëmale kanam waaye la ca xaw a juyoog ndigalul suñu borom mu fas yéene jëfandikoo baat bi ñuy waxtaane tey muy tuub ndax kat suñu borom dafa fab li ñuy wax texe mooy nit ki bu ëllëgee mu am la mu bëggoon yàlla ñu ko yàlla defal def ko ab dëkk waaye nag fab yoon wa ca jëm muy tuub mooy fi muy wax ci alxuraan naan ay yéen jullit yépp ee yéen waay yéen jullit yépp dee leen bari lu ngeen di tuub ndax te lee joxew ci benn garanti waaye kii tuub saa su nekk du yem mukk bu ëllëgee ak ki nga xam ne da koo ñàkkaloon fayda wala mu naagu ne moom lim def daal yàlla mënu ko koo jéggal moo tax mu far àtte sax ñi nga xam ne dañoo doya dal tuub te tuub mooy lan mooy nit ki dox ba yàgg mu xam ne lii mu nekk du na te loolu ku ne mën naa àtte boppam ca loolu ku ne xam na boppam mu rëccu ko bu ko rëccoo fas yéene dutu ci dellu mukk li fekk mi ngi dund di ànd akum xelam am na jàngalekat yu koy misaal ci dox ba yàgg mu joggi aw xal ne naaj aw xal kenn du ko ne teggeel sa tànk te it war war na di muy def muy wuti laalo wala ndox mu sedd wala meew di ko cosatti ku ne xam na ne jëruñu di ko laaj ndax rëccu ko koom déet waaye it bu fekkee tànkam neen la defoon it fu muy tegati tànkam dana ko xool bu baax day mu gis sax jàpp ne àdduna sépp ay xal la noonu la ñuy tuube moo tax yàlla tegub àtte ca pegg ba ne képp koo xam ne day def di dem te du geesu tuub mukk kooku yàlla daf koy dugal ci daayirab azzaalimiin mooy tooñkat yi nga xam ne dañoo noor ci tooñ ba seen mbir mujj lëndëm tëriis ba dutuñu dégg waaraate dutuñu ragal dara boole kooku sax far rafet njort ci ne ñoom def nañ loo xam ne bu ëllëgee mënut a def nen lu dul baax yan yàlla musal ci googu naagu moo tax li leen yàlla di àtte mooy dañoo def lu ne weng te faalewuñ ko ci seen xel waaye gëmm fatuus ak seeni gët nanguwutuñ koo xool gàkku koo wax ñu nangul ne kooku am na gàkk-gàkk waaye seen gàkk-gàkki bopp jëlale nañ ko fàtte nañ ko yal nañ ci yàlla musal moo tax yàlla ne wa man lam yatub fa ulaika humu zalimun moo tax bokk na ci xéewal yi ab julli war a sant suñu borom saa su nekk bokk na ca buntub tuub bi mu ubbi ak nu bàkkaar mën a toll ak nu aw ñaawteef mën a toll yàlla ubbil na ko bunt saa su nekk mu mën a tuub ndax bàkkaar yi ci gën a rëy gën cee mag weddi suñu boroom dara gën a ko caa féeti kaw xool xéewal yàlla yi di niitu ci jantam bi bu ëllëgee bu bu bëccëgee di niitu ci jantam bi di dem di doxe say soxla bu guddee nga xeru ci gudd xeru guddeem gu sedd gi mën a dallu boo tàllee tànk mu tàlli boo tàllee loxo mu tàlli booy lekk mu saf dara lépp di jariñ ci yaram bi ngay gis ak màgg ak dolliku xëy xëy ñu naan yàlla yàlla mu ne yàlla amut ay caaxaan la yàlla nañu ci yàlla musal wedd gu mat sëkk wala yi nga xam ne day tegtale ne kii amutut gëm yàlla gu wér yàlla nee na ku dox ba dugg ci daayire boobu it saa bu wàññi koo ne yàlla jéggal ma ca sàrt yi muy àndal yàlla jéggal ko moo la waxoon yonent bi ne ko qul lillazina kafaru in yantahu buñ xëy xëy ne ñukk lañ jàppoon ci ñàkk pastéef ànd ak yow di jaamu yàlla ci sa ci sam njàngale la weesu moom yàlla amul ci soxla bari na atte yum atte ci alxuraan yoo xam ne sax da koy tere waaye bu nit ñi ne day jaaxle sa ña ko jotoonoo def nag mu ne illa ma qad salaf la weesu moom yàlla fàtte na ko ginnaaw génn nga ca léegi li ma leetiku moo tax mag ñi daan ñaan mujj gu rafet yàlla ñu ko yàlla defal am na fi mu wax ci alquran di wax ak yahudi ak nasara yi nga xam ne dañ naan yàlla ak doom ji yàlla ak doomam ak soxnaam la xawla wala quwwata inna lillahi wa inna ilayhi rajiun laqad kafara alladina qaalu inna allaha thalithu thalatha yàlla nee na loolee ñu def ñoom wutal yàlla soxna ak doom ak ku koy jàppale ci liggéeyam muy ar ruhul qudus jabrail yàlla nee na loolu lépp la muy rëy rëy rëy rëy kee weddi woon yàlla moom ak léppam ak ñii nga xam ne gëm nañ tuuti waaye dañoo wutal yàlla ñu muy àndal ci liggéeyam ñi di ko jàppale nga xam ne bu dul ñooñu dara du sotti ak i doome ko soxna ñooñu la ñuy def la muy rëy rëy rëy rëy rëy suñ xëyoon xëy tuub rek yàlla amatul soxla ca lañ jotoon a def afala yatubuuna ila allahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim moo tax lewatuk suñu boroom ci jaamam ñi ak gën gum leen gën tey jëm ëllëg aaya bii rek mën na tënk liñ ko te wax lépp wa inni la ghafarun liman taaba wa amana wa amila salihan thumma ihtada loolu mooy tuub yàlla nee na lu waaye mën a def inni la gafaar yooyu mu ci jëfandikoo ay waxam du taxu mukk nee na maa ngi waat ne man mii day ab jéggalekat ab jéggalekat laa boo xam ne képp ku dem a dem ba xam ne def na lu ko jar moo xam mu tey ko wala tëyu ko waaye xam na ne man mii maa ngi koy gis fu mu mën a nekk mu wàññi ko tàllal ma loxo ne ma jéggal ma ba noppi waññi ko fa saa sa teg tànkam fañ ko ne nanga ko fa teg daal di jublang jublang jub ca lang ca nee na kooka mbiram dana jag bu ëllëgee yal nañ ci yàlla boole te bañ ñoo naaguloo ci xawma lu ma def lu may tuub xamut luñ lu mu def lu ñu war luy tax muy jéggul am na feneen fi muy waxe ne walladina alladina ida faalu faaxishatan aw zalamu anfusahum dakaru llaha fastaxfaru li dunubihim wa man yaxfiru dunuba illa allah walam yusiru ala ma faalu wa hum yaamaluun yaalamuun ulaika jazaauhum maxfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min xaalidina fiha wa nihma ajrul aamilin ñi nga xam ne dañoo jékki-jékki def wu ne weng woo xam ne ñoom ci seen bopp xam nañ ne lii moom yàlla da ko doon tere te bañ koy def ñoo ko tey it teewut buñ tuba yàlla mën na leen a jéggal dugal leen aljanna ja nga xam ne ña doon def seen dund gépp dañ koo jaamu yàlla te mosuñ caa def lenn mën nañoo dugg ci àjjana ñu bokk ak ñooña bokk yi kooku loolu yomb yomb la yal nañ ci yàlla dimbale te yombaloon ñu ko am na fi muy waxee ne wa man yaamal suu an aw yaslim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajid allaha ghafuran rahima kon boog nañ delluwaat ci yàlla xam ne yàlla ma nga fam nekkoon ñun ñoo fa jóge woon di tuñ tuñi ci àll bi te ku xamutut fu mu jóge woon ku xamutut fu mu jëm bu xamee fa mu jóge woon war naa mën a wàññi ko delluwaat fa ci lu yomb waajaat jóg kon toll nañ jamono joo xam ne tuub daa jot ndax ku defutit danañ daañ la nettali ko def nga dégg ci say nopp te suñ mag mi ngi wax ci ab téeréem naan kuy jëw na ngeen ko gaaw feemu bala mu àggale ndax jëw bakkaru jëw li muy rëy rëy rëy rëy kii jëw su amut kum nettali la muy jëw kenn du ko déglu kon boog ku defutit nit mën naa def ñëw nettali la wala ñu nettali la koo xam ne kii la koy nettali yoonam nekku ci ka ko doon def waaye dégg dégg na dégg daa yomb léegi loolu jar na dëkk tuub di dégg loo xam ne bëggoo ko woon a dégg laajoo ko wala ngay dox ci say soxla yoo xam ne farata ak sunna la ak liggéeyal sëriñ bi taseeg loo xam ne ku leen ku waxoon mag ña ne leen nit dana ko gis ci dundam danañ ko weddi te jubluwoo ko ca te it ki nga àndal moo naan la xoolal kay donte gisoon nga ko fénati ni naan la xoolal kay ni mel rek te te doo ko yëg muy bakkaar yi ñuy wéyal yàlla nañu yàlla nañu ko yàlla jéggal wala ñu jox la loo xam ne lekk lekk dañ ko war a lekk te lekk wut lekk wut wala ñu dénk la ko te dénk wut te boo ko dé ab sàcc bu la dénkee nga téel ko ko bu ñu at sàcc mënoo caa génn ndax bu fekkoonte ne bu sàccee du am ku mu ko jaay du am ku mu ko dénk mu téel ko ko léegi day sàcc jeex moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mii jëfee ndigalu suñu borom yi maanaam yi suñu borom wax moo koy leeral ci ay jëf am na xadis bu muy waxee ne nit ñi war nañoo walbatiku dëkk tuub saa su nekk ndax guddeeg bëccëg rek mooy àdduna am na genn kilifa gu mas a gane ji ci ab dëkk yandu fa fanaan fa bëgg a xëy kooka ne ko munoo toog ba mu gën a yàgg mu ne ko yàgg fi de amatul njariñ ndax def naa fi jamono jamono guddeeg bëccëg rek la te def naa fi bëccëg def fi guddi kon li li àdduna ëmb lépp ci wax def naa ko fi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yàlla nee na su guddee maanaam su bët setee jant bi fenk day tàllal loxoom ne ay waji ana kuy tuub lam defoon biig ci guddi gi ma jégal ko ko tàllal loxoom rek ku ta ku teg mu teg ca waaye nee na bu jant bi sooyee it nit ñi ne xam duñ ko dégg day tàllal loxoom mu fanaane tàlli mu ne ana kuy tuub li mu doon def ci bëccëg bi ma jégal ko nit ñi ne xam di nelaw moo tax mu jël waxukaay bu xumb boo xam ne ñi dégg way dégg xol yi dañ koy dégg naan ana kuy jégalu ma jégal ko ana kuy tuub ma baal ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ab jullit bu dem ba mu yàgg mu geesu xam ne def na lu mu warta def laal na lu mu warta laal xool na lu mu warta xool dégg na lu mu warta dégg dem na fu mu warta dem wala ñëwal nañ ko jóge fa bu tuubee day mel ne ci suñu borom ni ci suñu borom di bëggee ndax suñu borom moo bind aljanna bind sawaraay bëgg ko dem sawara nag bu suñu ñëpp dem aljanna yonent bi ne ni yàlla lay bëgg ci ku def dara tuub ca day mel ne nit kenn ci yéen ku gëlee moom réeroon bu doon jamonoy tey dañ naan ku otoom réeroon bu mu jënd lu cher ñu sàcc ko fu ñuy déclaré lu réer lu ne ma dem déclaré ko ba naagoo ca ne duutu feeñ ñu xëy xëy ne ko gis nañ oto ba barab sàngam mu mel na meloon mu dem fekk mel na meloon mbég sama mi àndal nee na noonu la suñu borom di bëgg ci bu ab jaam doxee ba mu yàgg mu tàll ay loxoom yàlla ne ko yàlla jéggal ma yàlla da ko doon yàq da ko yàkkawle ko yàkkamti woon ko xadis bi muy waxee bu bëccëgee yàlla day tàllal loxoom bu guddee mu tàllal loxoom mooy inna allaha yabsutu yadahu bil layl liyatuuba musii'u nahaar wa yabsutu yadahu binnahaar liyatuuba musii'u leyl xatta tatlu'a shams min magribiha fi muy waxee ne hal min mustaghfirin fa aghfira lahu laaj boobu dañ ko war a tontu ah kay ñun ñépp koy kenn ku ci nekk def na lu ne weng loo xam ne bu ko nit ñi xamut it moom xam na ko yàlla xam na yàlla nañu ko yàlla jëkkal waaye fa hal min taa'ibin fa atuuba alayhi tontu la mooy axakay ñun ñëpp li ko tàmbalee tey fii ci jataay bi noo ngi tuubal yàlla di jégalu suñu mbokk jullit yépp yàlla noonu yàlla boole jéggal waaye nag buñ mas a dem ba bokk ci ñi naan ni ma ko junjee woon dañuy dem a dem ba cëgg de sa tut ci guy Sëriñ Tuubaa bind ko ci Masaalikul Jinaan naan tuub dëgg dëgg dëgg mooy bi nit ki ànd ak sagoom te ànd ko wéram waaye di njaaloo ba mu yàgg mu seet aw yaramam ñu ne ko daa sida mu soog naan maa ngi tuub tuub tut tuub fekk na buntu tuub tëj yenn ci Yàlla musal waaye fab aw làmmiñam teg ko ci deri nit ñi ba ak wéra dikkul ko mënut a wax mu ne mu ngi tuub sëriñ bi neen loolu du ak tuub yàlla jàppeetu ko ak tuub waaye ab portable am foo ko fekk mi ngi ci def écouteur yi di déglu ay kanjang-kanjang di déglu ay wax yu reeloo ba yàgg tampon yi nekk ci nopp yi am jafe-jafe ba noppi bu mënut a dégg mu ne ni ngi tuub loolu tam amatul njariñ waaye abonné ay chaîne télévision yu dul jeex di xool ay caaxaan ba am tasio nga bët mënta ta gis naan mi ngi tuub xoolewu ko woon alquran xoolewu ko xasida nopp yi dégluwu ci woon ay xasida dégluwu ci alquran dégluwu ci wax ju baax kanamam pëyam ma itam yemutoon ci waa këram sëriñ bi ne loolu tudd ak tuub yàlla ñu ci yàlla musal moom la alquran di wax ne innama tawbatu ala alladina ala allahi lilladina yaamaluuna suua bi jahalatin summa yatuubuna min qaribin fa ulaika yatubu llahu alayhim wa kana llahu aliman xakima waaye wa laysat tawbatu lilazina yacmaluuna sayi'aati xata ida xadara axadahum almawtu qaala inni tubtu al'aan wala alladina yamuutuuna wahum kuffaar ulaika actadna lahum adaban alima kon tuub yàlla nee na mooy fi nit ki ànd ak sagoom ànd ko wéram am lu mu ko defe am fu mu ko defe mu xam ne lam la jote wees yàlla da ko doon tere te xamul kañ lay faatu mu tuub tuub gu sell wan ko gannaaw yàlla nee na ulaika yatubu llahu alayhim moo xam mu xamoon ko wala mu tayoon ko tuub gi la am soxla waaye léegi nag ba nga xam ne wéradi na wéradi goo xam ne maladie chronique lañ koy wax mooy gudd wérati saa su nekk daa war di jël garabam fekk daa jëloon posanam ba noppi daa jëloon posanam dëgmal de naan al inni al ana tubtul ana yàlla nee na kooka yàlla da koy fab dugal ko ci daayirab kuffaar yi yéefar yi te yéefar yàlla nee na woon démb tey soog a ñëw atadna lahum adaban alima waaja waajaloon na leen réserver réserver loon na leen mbugal mu metti mbugal mu azab kese kese bu ko yàlla waxee ab ab jaam war na ko muslu waxu waxuñu nag azabun alim siixa bi mu jëfandikoo yàlla nañ ci yàlla musal ñëpp te jéggal ñu suñuy bakkaar ak suñu rëcc-rëcc loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla ne woon inna fataxna laka fatxan mubina li yaxfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma taaxar wa yutimma nicmatahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka allahu nasran aziza moo wax ne yonent boobu ne yàlla yonent boobu yàlla ne yow yonent bi ya rasulallah fépp foo xam ne daa tëju woon ak anam gu mën a tëjoo nit ñépp jóg di kër-kër yi bëgg ko ubbi ubbil naa la foofee ana fu mu jaare fañ lay ubbil yàlla nga ko jaare ci toppatu la dara la nga jëkk a def ak li ngay mujj a def toppatu la dara te it lépp luy tudd ni'matullahi yàlla taqale na la ak moom marale na la ak moom te du tàgg du la tàggaleeg moom mukk loola fa mu ko teg mooy daf laa teg ci aw yoon woo xam ne wóor na kon dutoo ko wàcc loo duggati yàlla na jàmm waaye loo duggati yàlla dugg ca dugg ca loxo boobu garanti yonent bi amoon na ko sallallahu alayhi wa sallam ba fi mu toll ñu ngi koy jàngate jàngat waaye teewut da daan taxaw di julli guddi ba bët set am na bis mu taxaw ba tànkam yi newi te moo ne amutoon lu lu mu jëfandikoo booba de ba réerutoon booba ndax ñàkk ko moom la ko wenn waykat di wax naan wa shadda min saxabin axsaauhu wa tawa taxta alxijarati kasxan mutlaq al adami wa raawadathu aljibalu shumu min dahabin an nafsihi fa araha ayama shamami taxaw ba ay tànkam di neewi mu boole ko xiif bu metti te bu dee buntu buur sax yàlla nee na ko ubbil naa la buntu yi ñuy fëgg yépp ba ñàkk gu metti tax amut lu mu reere ba ba mu bëggee julli guddi daa fab ay doj fecc lee ko biiram takk ko ba mu dëgër ba faar yi duñ laalante biir bi ak faar yi duñ laalante doj yi wër makka ñëw naa ko tey nga ñëw soppi wurus jaay ñu makka ak madina tey nga ñëw soppi wurus jaay ñu mën naa leen déedéet jomb naa ko ndax am naa garantie yàlla fab ma teg ma ci kanam ñépp ba noppi kooku moo wax ne bis bu set balaa jant bu jant fenkee balaa so dana dana wax astaghfirullah wa atubu ilayhi lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon su jant bi sooyee balaa bët a set saa bu yeewoo ci ay nelawam dana wax astaghfirullah lazi laa ilaha illa huwa wa atubu ilayhi ay alxayul qawm wa atubu ilayhi lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon kooku nag am garanti boobu te inna allaha la yuxlifu lmiaad mooy wëlbatikuwaat naan yàlla jéggal ma ak yàlla naa ngi tuub waxuma laa ñun ñi nga xam ne la yàlla xam doy na yàlla nu yàlla jéggal ci barkeem te taas ñu barkeem cheikhul xadim jéggal nu suñuy bakkar yépp suñu diggante ak borom ak moom te guddal suñuy fan ba ñu mën a kafaara la weesu woon ci ay neen ak i caaxaan yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimin